salaamaaleykum mbokk yi ñi ngi am contentement mbégte di leen nuyu bu baax a baax a baax di leen dalal euh, fi nga xamante ni moom moo di ci euh, wasaare musique euh, di sit bu bees tàkk ngeen ci ànd ak ATM sekk fii ci New York ñu siy dalal suñu gan gi ñu gën koo xam ci Dame seen Dame na nga def. waa ATM Seck salaam maa ngi fi I am fine. waaw di sant ñëpp nag di sant yàlla bu baax. julli ci yonent bu tedd bi di sant sama ñaari waajur di sant sama sëriñ sëriñ Saliou Touré di ko ñaan bu yàgg fi loolu te di sant waa Amérique yëpp di sant nag rawatina nag fii ma dëkk ci kër gi vraiment mu doon loo xam ni wax dëgg yàlla beneen affaire la tey nga xam ne lépp dëgg la ay yem doo ca yem ayca kon tey nga xam ni lépp dëgg la ay tiyam doo moom la daam daanale mbokk yi di leen nuyu di leen ziyaaraat bu baax di leen jox seen wàccuwaay te di leen tatagal yéen ñi nga xamante ni yéen ñuy seetaan ci seen euh, bu mag bi euh, di bu bees tàq na tan daj ko ci paquet muy euh, wasaare musique daam du ñu def lu dul daal di njëkkee suñu laaj laaj bi nag du jëm fu dul ci sa jaar-jaar naka la daam jaar-jaaram ak nu mu def ba yegg si fii ci ci ci aar bi. waaw santaat yàlla gën a santaat quoi. parce que jaar-jaar moom. boo koy wax sax léegi di nga juum ndax gis nga nit ki. Euh, destin am yàlla suñu borom tracé na ko ba noppi. xam nga wax naan sondeel bu ñu xuloog làmp tant que courant coupé wul du am ndam. mooy ñun ay doomu buur géwël la bokk ci askanu ngéwël. kon ñun maanaam tey ak fu ñu mën a toll duñ jaaxal ndax fa ñu bokk a tax. fa ñañu meññ. dañ di ay ndaanaan. te ndaanaan ci ndaa lay naan bu bëggee fanaan. kon tey nag maanaam suñ jaar-jaar nettali ko dina yomb dina jafe ndax li muy jafe mooy am na ci yoo xam dañ koy xaw a fàtte ndax dañoo judd ci lii ñun. mu nekk suñ deret yi yàqal ñu lu ne. kon nag lii tey ak lu ñu ci mën a am ak fuñ ci toll ak luñ ci mën a doon ah nañ ko santeewaat yàlla rek ak suñu waajur yi nga xam ne ñooñu nañ. lan ah? la daam mën a for as tuut ci li mu si li mu jot a jaar wax ñu ko. man xam naa ne daal boo laqee daay gi tubaab bi jàpp la. xam naa ne daal euh, li ma la ci mën a nettali mooy damay fàttaliku ba may jàng ndeysaan bëgg koo boole tëgg ak fecc mu lee man loolu àndul ndax bëgg jàpp sa bopp bi ay leçon bëgg cee jàpp ay bàq mun te ne boo ko defee nag léeg ma dem école ba mu yàgg ma yoot ndànk rek dégg programme rek récréation rek ma ma récréé ca programme ba toj programme bépp ba pare nag dootuma dellu classe ndax boobu day fekk ñu dugg ndax boo ñëwaatee dañu xam ni kii am na fu mu demoon moo wiiri mhm. wàcc bu jotee nag ma ànd ak ñëpp wàcc bu ñëwee kër ga rek ma sànni sama saak su ko defee ñu ne jàng na ba wàcc xam nga ma léegi nag bu ñu jàng na ba wàcc. Mhm. yow jàpp nga ne yow jàngi ñoom jàpp nañu jàng nga. Mhm. léegi boo ko defee weer ngay def noonu looy jàng. moo jaaxal ñëpp. nilaar ngay doom ay ci kon mooy ci leen di doon ndilaar ndax euh, seen i parents soxla wuñ ko ci yéen mbokk yi di dellu ci question yi ba tey euh, Dame. ci New York ñu gis la nga ñëw fii tey États-Unis d'Amérique lan mooy say tànk fii ci ci New York. waaw New York man maa ko tuddee ñëw yokk soo gisee ma ne ñëw yokk la fii ku fi ñëw yokk nga. ndax yàlla du n'importe qui la fi indi. Mm-hmm. ba ma fi ñëwee samay tànk nag liggéey la liggéey moo fi indi waxuma liggéey dugg ci kii liggéey maanaam. Mm-hmm. ci wàllu li ma nekk. su ma neexee nag su ma ne su ma neexee. su ma nekk mooy lan. ci milieu art. musique bi may def mu tax mu indi ma fii. loolu moom ma indi fii. waa ñu war def ay tournée yu ndaw xam nga. léegi la ñu dégg sunu messe messe bu sew rek dem dóor tamit sunu benn xarit buy ngént wala xarit buy takk jabar mhm. wala sunu jigéen ñi nekk fii nga xam ne dañoo baax ci man ba lool aaye tuur ma ñëw rek génne ku ndung ndung su ndung mais nga xam ne mu nga ci ruq ba après naa ko dina dina ñëw noonu lay demee nag looloo indi nag samay tànk fii ci fii ci New ci ñëw yokk ci ñëw yokk

xanaa kii woo rek toogal foofu yow. bal li ngay expliqué. waaye ay am na ungee yoo xam boo ko dégloo xam ne rythme la boo fekkoon samay jamono yu ungee xam ay baax nga ciy génn lu <laughs> da nga liir buy jooy. lan ay baax la rek. léegi nga dégg ku jooy jooy boo xam ne day leen ne lii xoola du jooy baax la. kon dam ba mu juddoo la tàmbalee baax. man daal li ma la mën a xamal mooy. Mhm. xam nga émission xam ma wasaare nga waxoon waaye tey laa koy tasaare. <laughs> dafa war a wasaaroo ñun dañ bokk ci askan boo xam ñun nit ñuy taggee dañ naan jërëma ci mbéy saaxa yaa ngala mm. tey jii da juddu maanaam li nekk ci yow nekk ci yow ba moom ngay màggale li gars yi wax naan dafa am luy nelaw ci man dafa am lu doon nelaw ci man quoi gars yi ni koy waxee. man nelawul nag. da doon da doon forbët li nekk ci man nelaw da doon forbët ba mu foree nag. Mm-hmm. ba saagam fees. daa taxaw ma saak bu feesul du def dara. bu deful dara du du taxaw. noonu la demee nag. kii yooyu daam original nag laa lay wax nii. war a yéeg sur scène ak yeneen feem fem. original Dame Sène war a yéeg sur scène ak yeneen i fem euh, Dame Sène ci album bu bees bi. waaw euh, booy xool day ndeysaan euh, album bi sax bëgguñu ci sax di wax ndax comme day nekk si préparation yi ndax actuellement ñu ngi nekk def ay single yoo xam ne ñu ngi tasaare àdduna. ñëpp bëgg ko di ko bëggee ndax mboroxe mboroxe jaaroon na fi ñu ne déedéet mboroxe dañ koy lekk daam bàyyi gars yi ñu jëfandikoo ko. ñu ne déeta waaye daam indi ajaarama nga xam ne ajaarama da nga naan ni étirement la sa yi lay defar. Mhm. aji kumba tàkku nga ni mujj te boo mujjee balaa laa kenn siif police ñëw. mboroxe mboroxe geeg ajaarama gi indiwul coow indiwul woon coow ci ka coow maa ko génneeg yooyu noonu. xam nga maanaam dafa am ñoo xam dañuy toog ne ci el ba rek. Mhm. xam nga toog ba mënut a ñàkk waaye wala dugg bett. am na ñoo xam ne dañu toog ci elbar lu ñëw rek ñu aaki ah, moo na ñoom ñoo ko moom fekk ñu ci dara mm-hmm. dañ doon réer nag yaa ngi dégg xam nga man dama di koo xam ni euh, comme li ñu wax naan boo demee ci spectacle mm-hmm. jarul ngay ngay ngay yureeku jarul ngay sotteeku ndax am na ñoo xam ne dañuy dem di enregistré nit ñi mais mënuma loolu man dama bëgg samay fans fu ñu ne saa yu su ma ñëwee janook ñoom indi leen lu bees man loolu laa habitué woo. waa ci ci ci yu bees yooyu ngay indi say fans fa la gars yi di jaaree euh, coppati li nga yor. waaw gars yi bu ñu yëgee ni daama ngi ñëw fii ku ci nekk da ngay profité nag indi sa benn kii bu baax may ko fan rek nii. teg big ak fooy. di ko déglu te man damaa rëy laa damaa bëri wax ëppal réglé wu ma nag. damaa réglé. rek ñàkk a réglé tax lu ma génn ñu jël ko rek di ko xëccoog man te ma moom ay ci kon daam euh, ci ñàkk rek la boobu noonu la ñuy ñëwee daal di lay euh, laajaat li nga xamante ni moom moo di programme bu mag bi ñuy dégg New York te di la ci dégg euh, programme bi nu mu demee. programme bi programme mbedd mi entertainment la. Mm-hmm. ci mbedd sax la ñu waroon toog di def émission bi ndax mbedd mi entertainment ñoo woote. ñoom ñoo woote moo tax dañ koy mën. Mm-hmm. lañ ni Sénégal sur scène. moo tax Dame Sène war a sur scène. Soleil Levant war a sur scène. Bakaña war sur scène. safari war a yéeg sur scène def fa safara. kon loolu dina metti mu war a commencé nag le vingt neuf fii ci ñëw York bu ñu jógee le vingt neuf fii ci New York xam fu ñu Atlanta fa ndox may taawee ñu ne déetawaay mboqoñu Atlanta ñu ne Oxa. Oxa yoo mhm. yoo yëpp laay dàq. ñu jógee Oxa yoo dem fan. Washington. ma wàcceel ay toni wax. dina garaaw de. moo garaaw weesu garaaw. la waaj a waxoon ma naan ko nit du nit mu tax nga nit du nit man ko ku sa xel du nit doo nit. ndax fii lu fuuta féete daa fuuta ay tuñ. ku yem ci kees doo fay ginaar di. doo ku laal laal laaka di nga takk la ba taake. mais balaa nga xam oyo fa neex naaw jot. Mhm. ñoom xobak ñoom këyit dañuy naaw waaye ñoom mool fu ñu jëm. ci biir oyof googu noonu laay duggee sama beneen question gis nañu ni daam ku oyof la daam seen euh, ci oyof googu noonu gis nañu benn vidéo di la seetaan ngay baalu àq ki nga xam te ni euh, moom moo di euh, maanaam mun naa ne sax du baalu àq waaye mooy Papa Ndiaye coppet ndax yaa ngi koy woo ci ngeen juboo gis naa vidéo man te yaa ngi toog ci garab bi di ko di ko di ko wax pour ngeen pour ngeen juboo ci ci xuloo bi ngeen xuloo woon ma bëggoon xam-xam xuloo boobu noonu lan moo ko indi ak ndax juboo boobu am na ba ba léegi wala déet. xam nga jolof jolof da war a dégg olof boo bañee tolof tolof. Mm-hmm. ndax àdduna amul solo boo ko déggee boo tal ko lu mu sol tailleur ba ngay sol la ndax baatu mbubb ma la dul dagg. Mm-hmm. àdduna loo fi def defit la bañ defet moo tax gaa ñi def te am na ñoo xam kenn du leen tingom di yee singom ndax boo amul kàttan danga ngeen loo attan. Mm-hmm. te olof Njaay dafa ne ñax ak salade duñu benn ku weddi bineegaral te ñànka tang fu mu làqatoo di jëw soos ko togg sori waaw ndax àdduna du dara loo fi def defit la loo fi mel merit la te yàlla mi ñu sàkk indi ñu ci kaw àdduna moo xam tax mu def loolu te nit ku nekk rek war ngaa bàyyi xel ni ëllëg mi ngi ñëw ñetti fan yi bàmmeel ku ne di ko mos kon nag xiiro xiiroog ngaayoo moo ko jarul ci àdduna man gisuma loolu man gisuma loolu xam lu ma gis. moo ñu jéem a yéeneente jàmm raxas xol yi leen farata. ñëpp doon benn. am na yoo xam nag mën ta ñàkk ci àdduna parce que bëñ ak laami ñoo dëkk. te saa yu ñu xëyee jàppante. kale ne àtte kan lay doon nit ka ñu sax ca moom. mooy jékki-jékki téye jékki-jékki na laamen reste sur place yow. yaa ngi dégg léegi nag muy man di Papa Ndiaye di Mbaye Gueye Faye di Salam Diallo di Magay sekk di Pagaay Mbaye ak taasukat bu mu mën a doon war nañoo mën a xam ne ñëpp benn lañu. te lépp lu ñuy def rek ku ci nekk am nga ñoo saf. Mhm. ku ci nekkit la ngay def la nga ca war a am nga cay am fa nga ca war a dem yaa nga cay dem. ña la war a bëgg ñu ngi lay bëgg. Papa Ndiaye sama mbokk la xëytaana seytaana nag moo bëri woon doole. Mhm. ñëwoon na maanaam am nu mu maal mënee pap am nu mu mal mënee daam xam nga moo tax coow baaxul amul tax coow mal mënee moom mooy lan maanaam jaxasoo ay affaire yooyu xam nga li ma la ngeen jaxasoo maa xam nga indi loolu mooy réeroo amul ñàkk a am te xam nga maanaam lu tax coow bon mooy boo coowoo ak nit doo ko yéene jàmm du la yéene jàmm foo togg du fa baax te or que léeg nit yàq koo xam ne ku baax la mais coow mooy indi loolu ku ci nekk rek ngay xëcc mu jëm ci yow. Mm-hmm. yaa ngi de bu ko defee nag ngay déglu fans bu seytaane ndax ku ne am nga fans bu seytaane. <laughs> boo xam ne da lay bëgg boo loo wax neex na ko loo def bëgg na ko foo dem mu dem fa loo ko sant mu def ko. fans bu seytaane moom nu muy day day fii day yéem day neewi mm-hmm. ñuy toj xoolal bët bët pi muy def buy sàq mi du mokk. waa daam dam dina ma rey fan si bu seytaane kon bu yëwul fan yi xoolaat seen bopp bu baax a baax a baax ta taba seytaane gi